bi jàngoro biñu duppé Covid 19 duggé ci réew Sénégal ba tey njàqare lu jural askan wi lolé taxna na ñu jël ay matuwaay ci yenn bërëbu liggéeyukaay yi lu ci melni joxé joxe loxo jamono ji kat yi sawaruñu ci ngox si di wuyoo turu Abdou Sène moom ko mais ay buñu nuyo buñu def li yoy buñ ko gëm xam lan la wara gëm. nan leen gëm nun Sénégal gépp xam ne affaire bi du dugg fii de beneen réew nag mën na faa tàbbi waaye Sénégal gii grand Adja bindal maa ngi lay seeral ne la comme Serigne su baax ci ma la wax ñi ngi ci réew mii di dox yàlla seere na yonent man gëm naa li muy wute mooy dara duñ ci jàpp. bu fi duggee ba pare maanaam fa mu dugg ko ko fa andi fépp fa lay yem te yàlla seere na yonent dinaa la wax bala ngaa génn un mois ñu ne bi jeex na un mois doo ko diree te affaire bi jeexu bi nan leen gëm ni nu gëm boole koog nag di sellal tey raxas su muy set yaa ngi dégg nanda bi set loxo yi set yére yi set tëdduwaay bi set dëkkuwaay bi set loolu daal dañ ko jànkonteeg moom tey it maanaam actuellement ma bàyyi ñi nga xam ne yóbbu fit nit ñi ndax benn bu amee nga yokk ci fukk yaa nga yóbbu fiti doomu aadama njaay mais ku mel ni man man gëm li ma gëm man li mu wéte mooy boo ma nee suba nga dee man waaxu naa wut Tuubaa dem jaaxaan toog ba léegi moom maa ngi joxe loxo non du niru leneen ndax bu ma xasee génn fii joxe loxo bi dama koy bàyyi mais tàng maa ngi ñëw fii ci bérébu liggéeyukaay bi damay joxe foofu loxo mais bu ma fi xasee jóge duutuma joxe loxo ko xam nga ñun euh, dan di ay doomu làmbaay yoo xam si ñun buñ xëyee li nu gën a xam mooy joxante loxo la ñu xam ndax feebar bi wax dëgg yàlla jàpp naa ne ësseegut fii te ñun ay bawol bawol lan mooy comme li ma la waxal léegi rek a mënuñoo xëy te ñu waaw ñun nuyonte la ñu xam bu dee nag xamuñu la nga ñëw di ñu tàllal loxo mën nañ laa bañ a jox loxo quoi na la sawaa rek yam a yow foofu. lii sama taxawaay de wax dëgg yàlla comme ñi nga xam ne si ay mbok la ak ñoom. ñuy bokk fu ñuy liggéey mënuma xëy te nuyuma leen joxuma leen loxo mais bu dee jàmbur la moom xaw ma la xamoo moom du la jox loxo mais ñii ma nekkal nii dama leen di jox loxo aar bu ma xëyee ndax koo ci xëyut nuyu mën na koo jàppee leneen wala mu foogee ko leneen te fekk loolu amut. xale bu góor bi ñu fekk ca marché ba biir Ndakaaru moom nag muy xam ni ñoom mënuñoo ñàkk a joxe loxo dolli ci wàkkirlu ci suñu borom. ma yëgee coronavirus ba léegi. Euh, parfois su ma xëyee fu may liggéeyee mun naa damay joxe loxo mais la plupart am na nga xamante ne nii bu ñuy dugg ci marché bi di ñëw di jënd ci dara dañ lay nuyu mais bu ñu la nuyoo parfois boo leen joxul loxo dañ ciy gis seen bopp dañuy mer mais moo tax ñuy joxe loxo xam nga parfois Sénégal loolu habitude la joxe loxo jox kii loxo nuyoo nuyoo parfois mun nga xëy dugg ci marché. talal la ñëpp loxo ne salaamaaleykum ñu gisee ko neneen ne kii dafa fuuy wala dafa dafa gis bopam wala dafa de alors du loolu dafa am feebar bu bees bu dugg Sénégal mu tudd coronavirus léegi nit ñi dañoo bi dafa dangereux si joxe loxo rek mën na ci mën na la ci wàlla moo nit ñi ñoo war comprendre warul mer warul gis bopam tamit looloo tax mais man damay joxe loxo mit euh, fan yëpp sax damay bëgg dem entraînement mais damay ragal parce que man sa lay entraîner da saal ku ne nga fay dajeel en plus duggante génn bi xam romante bi rek mun na si wàlla moo tax it deux jours a ngi ni daw ma saal lundi ak mardi mais tey moom sama gars yi dañ ma woo téléphone ne ma tey di nga ñëw may leen incha allah dinaa ñëw. gannaaw ba ñu ci bëri ci askan wi nanguwuñu doxal digle yi nguuru Sénégal tëral ngir moytandiku lii di jàngoroy coronavirus ni di jaaykat yi ñoom tàmbali nañu jël seeni matuwaay di ñaax ñi ko defagul ñu teel cee jóg balaa di wéy mbuus. jël précaution yi nga xamante ne ni que moo ñuy éviter maladie bi parce que xamuñu fan lay jóge xamuñu nan lay ñëwee xamuñu euh, puisque dañu ne être en contact ak nit ki et tout ça donc dañuy jël les mesures préventives rek pour mën échapper bien que on ne sait pas si on peut y échapper, mais on prend juste nos dispositions par rapport à ça. Def suñuy masque yor suñuy solution euh, ay alcool et tout ça pour mener juste am ay pour juste prévenir nous par rapport parce que dañuy laal on est en contact avec le monde extérieur donc nit ci dañuy ñëw façon nit bu nek ngay gis voilà donc mesure mesure non rek pour euh, euh, juste qui alléger qui bi. Euh, comment je vais expliquer alléger juste maladie à mais ñi ngi ñaan mais bon c'est juste ce qu'on a à faire. masque mettre des solutions hydroalcooliques comme alco alcogéliques comme euh, pour aussi euh, pour protéger son personnel permettre aussi nous protéger monde extérieur parce que nous sommes suñu vers nous, xamoo lu ñu lay da en contact avec client clients, dina ñëw nuyu et tout ça Nous ci microbe la donc dañuy def juste attention rek dal liñ leen di liñ leen liñ leen di ñaax moy ku nekk nga jël say disposition jël say précautions parce que mëno forcer nit ki neko so soo ci boutique bi da nga wara rahasu wala da nga wara def li mais juste ku nekk alcool yi cherul désinfectant yi cherul ku nekk mën na ci bénéficier wu masque yi tamit c'est pas cher mën nga jënd sa boîte taxi si di nga ci may nit yi di nga ko utiliser yow tamit voilà xel bu ñàkk dal mooy ñàkk nuyoo ba ci ñàkk topp digle yi nga koy joxe li ñu mën jàppoo rekk mooy ni doxaliñu askan wi wute lool ku ci nekk yaa ngi jàpp fi nga jàpp teg ci di sàkkuwaat ñaan delloo lépp ci loxo borom bi ngir mucc ci coronavirus bile.